faslun lii bunt la nawaaqidul wudu i mooy li nga xamante ni moom mooy dëggal njàpp lii tax njàpp war a am lii tax daal liy imposer njàpp mbir yi nga xamante ni ñoom ñooy imposer njàpp ñoo war a tax ñu war a jàpp mu ne ahdaasun wa asbaabun bi maanaa kon matière yi nga xamante ne moom mooy mbir yi nga xamante ne su amee rek faw da nga war a jàpp wa asbaabun ak lan mooy seen cause mooy seen ay sabab fal ahdaasu yan la al bawlu mooy tuur ndox saw saw su amee rek faw jàpp dafa raw wala xaayitu mooy dem kabine ah lu ñëpp xam na luy dem kabine mooy aller faire xaw ma lan kaka nu koy leeral rek daal jàngale dafa baax da ngay xam lépp islam yëpp da koy jàngale reexu mooy ngelawal wolof piir di ko wax fusal yaa ngi dégg wal mas yu ak wal was yu mas yu nag mooy tubaab fii mu ngi ko mu ngi ko firee liquide liquide blanc et épais ki liquide prostatique mais xam nga nit ñi xamuñu li liquide prostatique moo tax firi baax mas yu mooy lu mel ni sperme te du sperme soo ko laalee ni day tax mel ni luy kole comme si ngom nii si sa loxo xam ngeen ni ma la wax mais du man yu xam nga man yu suy génn day doog génn day weex sperme suy doog génn ci ci pëyu ku góor ki day xam nga day weex su yàggee mun na mel ni ndox waaye lii njëkk a génn avant man yu loolu la ñuy woowee mas yu dégg ngeen ah wal was yu nag moom mooy man yu ci boppam comprendre bi maanaam man yu ak li li tegu ci moom kon jàppal ne manu bi avant manu bi day dugg ci mas yu manu yu ci boppam ak la tegu ci moom yépp tamit day dugg ci was yu bi maanaa ci ci mas yu bi maanaa kon liquide yooyu bépp liquide boom génn na ci sa ci sa pëy ah xamal ne rek day indi day waral day waral njàpp te ñoom juróom la mooy yi ma la wax ni comprendre nit ki balaa ngay sëy ah liy njëkk génn li ngay yëg sa tubéy wala nga am li koy indi dinaa dinaa ci ñëw kooku day génn kooku day indi day waral njàpp tuur ndox day waral jàpp kon daal bépp ndox boo tuur rek xam nga loolu sama tamit tuur ndox la rek sama yéenaa damay dem tuur ndox mais ndox boo tuur la bépp ndox boobu daal génn na ci sa pëy ci sa sexe yow ku góor ki wala ku jigéen ki yaa ñaar yépp la de day waral jàpp day waral sangu set waaw léegi nag ba mu léegi nag mën yu moom mooy li ñuy wax sperme moom moom su génnee moom carrément mooy bu weex bi éjaculation am kooku faw sangu set moom loolu moo tax ñu naan ko purification majeure la laaj ablution mooy la purification mineure dégg nga kon yi nga xamante ne yi génn noonu wala ñi nga am dañu feebar jékki-jékki affaire yi génn am na ku ma ko mosoon laaj ca tel téléphone damay jékki-jékki am kii après ba ñu dama feebar mais après defal nañ ma ay test gis ñu dara am na ku ma mos a laaj loolu ma ne ko loolu taxul nga sangu set tout le temps feebar la da ngay jàpp rek waaw da ngay raxasal jàpp su dee nag loom day génn tout le temps la nag comme feebar la jàppal rek continuer jarul gi comprendre wala ngay julli ngay yëg ko muy génn fekk feebar moo tax doo dog sa julli di ko raxas de muy continuer ndax yàlla mu ngi fépp comprendre kon mas yu ak was yi mooy ñaari liquide yi nga xamante ne moom bànneex bu ndaw moo koy indi mooy biy génn avant ak biy génn après léegi wal asbaabu lan mooy sabab yi mooy cause yi mu ne lan mooy waral ba yii nii génn mooy annawmu saqiilu annawmu saqiilu mooy nelaw bu diis nelaw bu diis mooy nelaw boobu nelaw nga ba fàtte fi nga nekk wala nga eh lan lan lañ doon waxati man xawatuma sax kon waxtaan nañ fa gars yi reetaan nañ ma tooñ nañ ma fii yëguma ko loolu mooy nelaw bu diis bu xóot comme nelaw sama copain rek moom nelaw bi day yéeg day yéeg da ngay fëgg bay bëgg a dee du la yëg nga ñëw ba ci nopp bi naan ko këng këng këng du la yëg dóor bu baax sooy wootee téléphone sax du ko yëg foog nga am noo dóore bu baax mu ne ko ne ah ah kooku moom bu dee ne dafa do- waroon ju liggéey amoon jàpp ba avant muy nelaw dafa war a dem baamtu jàpp bi kon jàppaleen ne nelaw bu diis tamit yamul ci lii rek de nelaw bu diis fu mu amee rek dangay bamtu jàpp soo nelawee ba gént sax xam nga loolu du woon nelaw woyof xam nga gént moom soo ko commencé def rek rek nelaw bi xóot na kooku da ngay dem beesali jàpp ba bu dee somnolence la somnolence mooy ngay xaw a def nii nit ñi ne nit ñi ne eh maa ngi dégg de xam nga parfois ngay nit di wax ak yow yi kii de ñu lay jëw nga ne ah man ngay wax loolu ak ñu ne yi kii nelawul de kon loolu nelaw bu woyof la kooku du du tax nit ki beesal njàppam waaye nelaw bu diis moom ñaareel beesal njàpp rek amul jóg di kii dégg ngeen léegi nag moo tax an imaam boobu doon wax femme bi ne ko man nelaw ma woon bay beesal jàpp parce que nelaw bu woyof te foofu sax nelaw amu fa ndax nelaw bu woyof mooy ñàkk nelaw rek lañ ko considéré moo tax doo beesal bi maanaa jàppal rek ci gàttal na lépp luy tax ba nit àndatul ak sagoom xam nga sooy nelaw ànd toog sa sago parfois sax dangay gis nit ku nelaw sax di wax yoo xamante ne doo xam eh bàyyi leen ma damay kii wala eh su ñëwee dinaa ko lii la leen waaw suba ñu ànd fa dem xam nga kooku dangay gis ni kii àndatul ak sagoom te su sañoon su nit ñi doon ko xool du def loolu loolu tax ñuy bëgg nit ñi muy suturaal ay nit rawatina kilifa parce que loolu ñëpp lay daal mu nga nekk kilifa nga bokk ak moom ne mu nelaw di wax yooyu nga ne wax kii moom lu mu wax fekk loolu àndatul ak sagoom kon lépp luy tax na nit ki lépp loo xamante ne tax na nit ki àndatul ak sagoom rek kooku day toj njàpp lépp luy tàkkale nit ak sagoom rek xam leen ne loolu tax toj na njàpp loolu loolu lax deere di wax ni mu koy waxee moo tax mu ne naw mu saqil nelaw bu diis wala irmaaw ak xëm mooy nuuru ci dara bu xëm soo xëmee ba ximmaliku da nga war a jàppal képp koo leen gis mu xëm ximmaliku rek dafa war a jàppal ndax tàkkalit sagoom moo tax ci am na baatin nag bii moom yow bëgg naa nga xaar ci loolu wa wa sukkur sukkur mooy mandité mandi waaw waaw waaw fan la buntu asamaan bi nekk fii la non maa ngi jël train bi fii di wax yoo xam ne kenn xamul lan kii dafa mandi eh neen sama yaay booy suba ñu dajee xaw ma lan Espagne xaw ma wax affaire yooyu ñu ne kii moom mandi la ni mandi ku mandi xam nga tuuru ndox génnewul ngelaw demul duus jaxasoowul ak jigéen waaye ba mu ximbalikoo ci màndi bi rek dafa war a jàpp comprendre wal junoonu ak dof si dof dof tamit garaaw la de mooy défa défense def moom la ñuy wax défa l'accès de démence quoi waaw junoonu mooy dof dof rek daal nit ki si demee ba kii su jógee waat ci loolu sax waral di jàpp waaw muy jëli am na ñoom dañuy dof parfois ñu jékki-jékki rek dof parfois ñu ñëwaat comme ñu ñu xam ay rab da leen dugg ba jékki-jékki rek ñu dof ko changé bi ñu wax kii xool affaire bi soo jàppee nii la koy def crise bi su paree loolu même su dee kiiwu dafa jàpp waaye boobu liñ ci lam sax li ci gën moom nga sañu sax wal xublatu al xublatu mooy fóon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na góor bu fóon jabaram li ñuy wax baiser comme yéen koy gis ci télé baiser boo baiser sa jabar rek dañ ci am tuyaaba loolu yonent bi moo ko wax ndax xamul tax dañuy bëgg liy rataxal diggante bi liy tax seen diggante neex moo tax loolu côté boobu c'est à copier ci tubaab yi par exemple waaye nag pas ci kudd sa jabar rek su dee def nga ko su dul sa jabar rek dangay weeru de picc mooy sax si surtout nit yàlla soo ñëwee si ñoom noonu noonu koy gisee dama leen di junj de li may am ñu baatin la soo ñëwee sa tuñ nii day dafay tomb tomb ay picc ñoom dañ koy gis dañ koy gis nii boo demee nii ba pare ba ñëw nii ñoo ne waa Cheikh bi ñu ngi siyaar rek suñu gisee picc yi rek moo tax ñu ñuy sëgg après ñu naan day saan sët nag ak ka yaru taalibe bi sax moo moom sax moo gën a yaru taalibe bi moom du sigi sax xool taalibe looloo tax que Cheikh Mamoun su xoolee taalibe bi fekk taalibe bi moom tëj na dëkk bi day am kersa te du bëgg di gis ay tilim tilim ak yooyu xam nga loolay problème mu ne ku njaaloo sooy ñëw ci moom ñu lay juutal sooy ñëw nii au lieu mu gis sa bopp bi nii yow yaa ngi ñëw de neen de sa tànk yi lay gis nii gis sa bopp bi ci suuf lu dara la soo gisee image boobu rek nga xam ne kii sama waa ji doxul daal kii doxul de tey comme yii nii yëpp nit yàlla yi dañ koy xam yaa ngi dégg xool sëriñ aadi ñes papa aadi ku teg tànkam karawam mu ne sa catuwee sa soo ko tegee ci tànkam mooy njëkk gi sa catuwee sax dina xam ndax xam nga yàlla wala boobu boobu mu grave ah loolu technologie yàlla bu avancé bi la ñoom dañoo am accès foofu technologie boobu nag yàgg ci sëriñ sax di liggéeyal yàlla sax ci mooy tax nga am waaye soo ko amee du looy génne te soo ko amee kenn du ko mën a xam dafa mel ni nga ba nga xam yàlla xam soo xamee yàlla kenn mënu xam ne xam nga yàlla xam nga tey ji maa ngi gis tey ji soo toogee nit kuy gis ak ku gumba suñu taxee di xool di waxtaan nii mënu koo ko xam tant que côtoyé waa ji wala waxuñu la ko waaye suñu ko jëlee téye ko jàpp i kon kii dafa gumba gis nga man man xaw ma ko woon ak nga wax di nga xool di kii parce que am na loolu mooy noo tax ñu tuddee ko baatee wal xublatu mooy fon fon day toj njàpp kon fon bu munti doon nag ah fon daal lañ wax day toj njàpp yaa ngi dégg wa lamsu almarati in qasada lazata aw wajadaha wa lamsul marati moom mooy nga làmb nga laal nga làmb wala raay loolu la ñuy lams almarat yi mooy jigéen in qasada ndem ba nga ko doon def su fekkente da nga ci yéene woon ne damay sàcc da ngay def jël plaisir ci raay bi ngay raay jigéen day attention nag de dar si na mu bëgg mu leer ak góor góor jigéen leen fàtte am ñoom ay góor jigéen nañ bu fekkente dama ngay raay tamit góor di ba ngay raay góor bi yaa ngi ciy yéene ni waaye man damaa bëgg am plaisir ci raay mu ne fekkente ne danga ciy yéene ne da nga bëgg soxla plaisir su dee am nga daj nga ci plaisir ñàkk ko cee daj yéene boobu su duggee rek toj na si njàpp leer na bu dee jigéen yi tamit pare kon bu ñu jàpp rek jigéen xam nga ñi ba ñuy moo tax borom téere yii li ñu naan dañuy jàng nii seen téere yooyu waaye parfois yow da leen di gën a avancé de parce que ñoom ñu musa imaginer loolu dina am suñ seen jamono su doon lu bëri woon na trop comme léegi xam nga ni dem ba si bu bind di dina ne walam sul mar ati wal wal mar wal mar u wal mar ati waaw mu ne im xasada su fekkente ne jublu na ci allazata mooy bànneex aw wajadaha wala it mu làmb nit ki jigéen nii rek fekk jubluwu ci woon bànneex mais mu yëg ci bànneex tamit ñàppam day teg leer na mu laal làmb góor tamit su dee góor jigéen la ñaan nañu ko yàlla góor jigéen moom daanaka moom soo ko nekkee moom da nga war a tubaat bés ko dem sag si lépp nga war a def waaw comprendre waaye daal su fekkee ne daal da nga làmb yaram léegi nañ daal dugg ci cadre dars dars bi jigéen la wax su fekkee da ngaa ya- làmb yaramu jigéen ah fekk yow yaa ngi ci yéene woon bànneexu toj na sa sa ñàkk toj na mu ne su fekkee ne danga làmb yaramu jigéen te fekk nga yëg ci bànneex te yéene woo ci woon yëg bànneex it sa njàpp toj comme nga dugg ak moom ci nga dugg ci kaaraap it jigéen conco la ngeen am loo leen griso wala xawma daal du mu def te yow yéene woo ci woon mais yëg nga ci bànneex ci lu ndaw lool rek ah wala mu teg la lenn ci yaramam nga yëg ci bànneex rek sa njàpp toj même bu dee yéene woo ko ci waaye nag soo ko ci yéenee nag ne damaa fas yéene am bànneex ci jëf ji même su dee yëgoo ko ci njàpp ba yi toj na pour wan na ni yéene bu baaxul tamit leer na moo tax mu ne wa lamsul marati mooy làmb jigéen comprendre mooy attouchement ñu koy wax in qasada lazata su fekkente ne jublu daf ci jublu lazata bànneex mooy désir plaisir ak yooyu aw wajadaha wala mu éprouvé ko ci ci intention bi mu ne loolu day toj njàpp wa massu zakari bi baatinil këffi aw bi baatinil asaabi yi day toj jàpp day laaj day imposer ablution xam nga lépp luy imposer ablution lépp loo laaj nañ nga war a jàpp rek loolu tamit moo toj jàpp su soo xoolee kon mu ne su fekkente ne sa loxo wa masu zakari sa sa pëy mooy le pénis de l'homme su fekkee danga ko làmb wala nga téye ko ak sa loxo muy main droite wala muy main gauche bi baatini kaf fi mooy ci sa baatinu kaf fi mooy sa tënk li lii lii lañuy wax tënk la paume de la main lii bu dee lii dafa laal baaraam pëy bi su dee lii la baaraam lii laal ko fii ah lii xoolal walaayee nii rek njàpp toj su ko defee nii njàpp toj na su ko defee nii njàpp toj na mu ne su fekkente ne nag daf ko def nii njàpp toj na nii njàpp toj na ndax dañu ne baaraam yi xool leen baax baaraam yi mu ne bi baatinil këf fi aw bi baatinil asaa bi wala ci biiru baaraam yi xam nga lii mooy biir bi lii mooy biti lii mooy biiru baaraam lii mooy biti su dee lii la rek moo ko laal waxuñu ko su dee lii moo ko laal yàqul waaye su dee lii toj na njàpp lii te gis nga lii ni mu couleur couleur mu mel ah sooy raxas am doo tàmbali moom bu ko defee doo nga ñëw ci biti seet na ko kon lii su laalee sa pëy yow ku góor ki sa njàpp toj lii baaraam yii baaraamu biir su laalee sa pëy sa njàpp toj soo ko téyee sa jàpp toj même su dee dara génnul sa oo demoo douche demoo dara génnul wala nga ne xaaral ma vérifier dafa mel ne dafa am lu yëg soo ko laalee rek laal rek laa wax toj na njàpp yaa ngi dégg kooku Amadou war nga cee xaar xaatee lu tax laal rek pay da ngay laal rek yàpp jàpp toj nga war a nga war a reprendre nga war a am caaxaan ay jaaloo yi bu leen ci kenn mësa dugal man li ma ci xam moo bëri dafa doy waar am na xaytu maqaama yoo xam ku njaaloo di ko mës a am ba peccam yàlla après loo jaamu jaamu yàlla jaamu yàlla bay bëgg a dee am na maqaama yoo xam doo ko mës a am njaaloo kat du ko am même su dee benn nga mës a am si dund yow man ma tëju njaaloo benn yoon ah yow mosoo njaaloo waaye ba mu njaaloo man tuub naa jégalu naa waaye may nekk di def mille rakk par jour yow dix rakk am na maxaama boo xamante ni mun nga kawe de yàlla mun na la baal de waaye am na maxaama yoo xam doo ko ci jot waaye moom mun na ko am ma dañuy wax li ñuy wax disqualifié da ngay disqualifié ci yenn maxaama yi waaye yàlla ko nga xam yërmaa na yaatu wa man shakka fi xadasin wajaba alayhi lwudu képp koo xamante ne rek dafa sikk ci xadasin ci tilim tilim mooy toj wax toju tojub yaram xadas wax naa leen sànq taxaaratu xadas ak xabas lan la waaw taxaar taxaaratu xadas mooy taxaara eh fàtte naa leen wax non kii laa wax fàtte naa leen wax nit tamit di xool jigéen ba yëg ci lu lu toq ci sa yére mas yu génn njàpp toj na wala ngay xalaat ay affaire ba sa kii génn njàpp mi toj na war a leer de waaw wax ñu ay laal nii rek dégg nga léegi nag koo am sa affaire yi nag day génn te fekk yow dara du dara mais feebar la kooku moom taxu ñuy wax dégg nga ñu koy raxas rek wa man shakka fii xadasin wajaba alayhi wudu képp koo xamante ne sikk sàkk nga ne ci xadas mooy tilim tilimu yaram am nga toj toj ah waaye ngay sikki sàkk nga am nga ko wala déet reprendre daal ci jàpp demal nga jàpp demal nga jàpp daal yaa ngi sikki sàkk naan ndax dama ngelaw wala déet man dafa mel ni sànq tuur naa ndox de wala est-ce que tuuruma ndox mais tuur naa wala tuuruma ndox ngay sikki sàkk même su dee tuuroo ndox rek nee na demal nga jàppi comprendre nga sama ngelaw yi xóot na wala xóotul demal nga jàpp leer na léegi nag illa an yakuna mu assisan mu mu astafirullah illa an yakuna mu waswisan fala shay'a alayhi ba mu des ki nga xamante ne mu waswis la mu waswis moo koom dafa feebaru sikki sàkk moom dana tuur te def naa ko def na ko dugg naa tey wala dëgg nuyu naa la wala nuyu ma la xam nga am na ñoom feebar boobu dañ ko am mais dem kii tout le temps ñu ngi mu was wis loolu dafa nekk ci seen nature ñu ne kooku moom su dee da- dafa tàmm was wasa was wasa ba nga xamante ne mu ngi naan ngelawal naa wala ngelawul ma tellement dafa tàmm daf ko tàmm di def ci yeneen ak yeneen yu dul luy toj njàpp kon kooku day jarul muy jàpp su dee amoon njàpp nee na na continue ba mu ba mu leer ko waaye su dee tuur na ndox ba mu leer ko wala mu ngelawal ba mu wóor ko ne man la boobu nag wax dëgg dafa war a dem njàpp leer na buntu baa ngi jeex nag fii mu ne wa yajibu alayhi xaslu zakari kullihi min al masji wala yaxsilul un sa yeyn wa yajibu alayhi war na ci moom xaslu zakari mooy mu raxas kanamam kanam lu soo leen déggee mag ñeen naan raxasal sa kanam rek mooy sa pëy c'est le pénis waxuñu kanamu pénis bi de bopp bi de kanam pénis bi ci boppam moom la ñu woowee kanam leer na waaw kay wa yajibu alayhi war na ci moom xaslu zakari mooy mu raxas kanamam kulli yi mbooleem seen minel masi masi su fekkente ne liquide boobu ma la doon wax nga am désir moo ko indi wala benn bànneex bu ndaw moo ko indi te fekk sperme génnul kooku warul waralul sangu set am na ñu bëri la ñu foog ne loolu si génn nañu sangu set déedéet waralul sangu set dafa toj njàpp dafa laaj nga jàppaat yaa ngi dégg mu ne nag wala yaxsilul unsayayni bi maanaam les bijoux de famille la la ko tubaab bi di wax les bijoux de famille mooy comme li wolof di wax xuur mooy les testicules ah wala xuur lay wax testicule la tubaab di wax wala bijoux de famille ñu ne raxasal sa kanam waaye testicule yi jarul su dee mag yi moo génn leer na soo mas yu génn na yëngu te war naa sa kanam waaye nag bu leen fàtte dara mas yu génn na su dee xam nga ne dafa takk sa kalso wala silip ah foofu la lañ ci wax nadax isa asabat naj- najasatu wa- lan lañ ci wax sànq su fekkente ne eh, wa in tabasat nadaxa bu fekkente ne biir na leer na nañ ne fii la takk ci sa caleçon bi gis nga ko nii xam nga loolu du bokk la ndox day xaw a bàyyi trace nga jël ndox bu ëpp la takk nga sotti ko ci ba foofu noonu yëpp région boobu yëpp tooy xam nga su dee fii la nga sotti ndox da ngay gis ndox bi day jël nii waaye li gën sax mooy nga def nii après weñ ko loolu caleçon boobu balaa ba pour jël wa ilaa nag su fekkente ne xamatoo fan la takk nag ci caleçon bi aussi la saw kulluhu lañ wax mbubb mi yépp raxas ko wala boog nga simmi ko changé leer na mu ne wal masyu huwa almaau alxaariju masyu lay firi masyu mooy liquide prostatique bu di tax boobu di génne ci sa kanamu góor huwa almaau mu ne mooy ndox mi nga xamante ne alxaariju mooy génn inda shahwati ci nit ki ba mu yëgee bànneex ba mu amee désir yaa ngi dégg wala bànneex bu ndaw daal shahwati mooy bànneex suguraa bu ndaw yaa ngi dégg bànneex boobu moo xam mu am ko bi tafakkurin ci di fàttaliku ah moom la tubaab di wax souvenir voluptueux di fàttaliku lu neex loo musoon dund ak yooyu genre yooyu ba loolu génn aw nazarin wala ci xool jigéen wala dara liy tax sa xel nekk ci loolu ba loolu génn aw xayri yi wala laa leneen dul moom léegi nag man la wax leen man wàllu yàlla wax naa ne man wér naa salaat fatiha ay lim ba salaat fatiha day neex ci man ba da du day génnee sama man man yi man ne ko nga ne lan mu ne waaw kooku de wax na ma loolu léegi ma laaj ne kooku dafa war a beesal jàpp wala war a beesal question wala beesal jàppam parce que sooy sëy sa soxna xam dañ ne ne tuyaaba la ah soo paree di sangu set ñu ne ndox toq ndox bu wadd buy génnee sobee danga koy baal bàkkaar bindee la ko tuyaaba ndax sëy baax na dans les dans les règles de l'art xam nga kon ci jaamu yàlla la man yu génnee foofu te pourtant yaa ngi sangu set kon tamit ci jaamu yàlla ci wéru salaat fàtte bi wala di jàng alxuraan ba yooyu wala daal je ne sais pas daal ci lu dul mbiru ay jigéen am na yoo xam yooyu da leen di dal wala ñu tiit am ñoom suñu tiitee yooyu génn ça dépend daal wala ñu kontaan trop comme ñoom duñu kontaan suñu ree dañuy ree bay jooy doo koy gis xam nga façon nit bu ne la yàlla bind l'essentiel daal xuruj lañ wax génn daal su amee rek moo xam bu baax beeg bu bon beeg yépp moom day raf war a sangu set wala jàpp leer na su dee mani yu la moom sangu set mooy bu weex su dee wasi masi yooyu wasi yooyu moom raxas jàpp bunt boobu it kon pare nañ ko mun nañu yem fii comme ça ñoo xam ne sori nañ avancé nañ ci ndax benn bi du noonu commencé avec àlallahi bi aziz asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu